di naqarlu rek am nañ métit ba fi métit yam parce que ñun amuñu kudul Seydina Limaamu moom lañ xam moom lañ moom lañ bëgg ci loolu lañ juddoo dañooy juddu fekk suñu maam nekk saaba Seydina Limaamu amuñu kudul moom kon tiis bu métti bi dal si ñun suñu kaw ñu ngi koy jaale ñëpp parce que sëñ Ablaye du ñun kase ñoo ko moom ñun ak képp kuy doomu aadama lañ ko bokkool métti na parce moom moo toogal Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam Seydina Limaamu dañu woon Abdoulaye bi ci biir Abdoulaye bu ñëwee sama yoon sama woote dina siiw def na ko waral na wàcce na matal na te tette na ñu fi fekk yar nañu ñun moom rek lañu xam moo tax lii metti na démb nelawuñu tey lekkuñu naanuñu metti na torop voilà waaw waaw waaw loolu dëgg moom loolu moom dëgg la. parce que man man maa yore caabi ji mais dañ ma ko wax ma ne léegi loolu daal il faut que ma xool lu mu demee mais mu demee daal géej gi ram na lu bëree bëri bëri lu mu lu fi musul am waaw géej gi xam nga dadaan daan avancé léegi gi maanaam ni mu la ko mën a waxee war na dem ba fi fële gaal yi yem waaw xaw dem dem na ba foofu waaw kon xam nga loolu kon sori na mais guddi la woon ay 3 heures du matin 3 heures du matin waaw après nag si la commencé di ñëw nit ñi di si ndox mi di yóbbu. waaw loolu lépp ñu xam ne rek kilifa jóge na fi guy daanoon la daal maanaam guy moo daanu waaw. Euh, nit ku dëggu nit ku am pasteef nit ku gëm Seydina Limaamu maamam nit koo xamee ne boo xoolee jëfinam si dëkk bi il était là pour le développement économique social de euh, du Sénégal ñoom ñëpp ànd nañu moom wër xalif généraux yëpp de son mu dem seetal seet waxtaane leen ak ñoom pour que Sénégal am une stabilité pour que Sénégal am une prospérité pour que Sénégal am des personnes convaincues ñoo xam ne dinañ dalalee Sénégal vers euh, un avenir prospère. c'est parce que ñun suñu kër sax ci géej gi la bokkoon bu ñu gasee tuuti dañuy gis suufu géej ñun Seydina Limaamu moo randal géej ñun ñu dëkk parce que dafa randal. ak njabootam dëkk ñëpp dëkk du ñun kese sax ñoo dëkk bàyyi laay daal mooy resooru moom la yàlla yónni moom la yàlla tànn ci mbindeef fi jël ko def ko muy gën gi mbindeef yàlla teral ko mu jox ko jikko yonente bi jox ko xol mu toog benn njolloor mu tàng jër naaj bi metti lool mu taxaw fii ne aaji boo daayalaay yaa ma saral insi jinni inni rasulullah ilaykum moom moom waxam jooju ñun waxuñu ko de ñun dañoo judd rek fekke ko ñun jëluñu bàyyi laay def ko yonente bi yàlla moo ko tànnal boppam jël ko def ko xayru xalxulaay ñun du ñun bilaay moo ko tànnal boppam du ñun ñun dañoo judd rek fekk muy yaa ñu fekk ci suñuy waajur ñu amuñu lu dul topp ci tey ñaan suñuy doom bu ñu juddee ñu topp dégg comme ñun rek yal nañu yàlla may xol guñu muñee sëñ Ablaay dëddu gim ñu dëddu sëñ Ablaye moom wax fa dëgg yàlla man moom lotta naa torop ci wax wax fa dëgg yàlla waxta naa lotta naa torop ci wax ko ndaxte dafa mel ni daal nga jël sab kaas rek dem si géej gi tànq la ca mën a yor daal loolu nga ciy yor donc euh, ay mbiram mënuñu ko mënuñu ko dajale <coughs> te yàlla def na mu doon koo xam ne euh, lislaam rek a kër yitteeloon rawatina diiney maamam ji parce que maamam daana wax ne Abdoulaye mi si Abdoulaye bés bu ñëwee rek sama yoon bi leer bés bu ñëwee rek sama yoon bi siiw amaana bari na Abdoulaye yoo xam ne peut-être ñu ngi ko doon yaakaare mais moom ba mu ñëwee ñëpp xam nañ ne mooma te taxawee na ko. Ah, xëj na nag su ma waxee trop dañu naan peut dama xër wala li ma ci bokk la waaye de ah du ma ne lim liggéey si diine kenn liggéeyu ko de waaye de man gisuma ko bokk <laughs> ah waaw diine ñàkk na diine ñàkk na te buñ ne non du laayeen rek diine ji moo ñàkk parce que buñ ne diine ji moo ñàkk sëñ Ablaye ku xew la Sénégal <clears throat> moom moo ciy dem ba mu ciy toll dëgg dëgg dëgg. moom mooy dem taxaw muy Touba di Tiwaawan di laay di Njaasaan di Canaba di sëp moom mooy teew ak lu ñu mënti xewle nag lu mënti xew foofa moom mooy sol dàllam moom moo fay teew yor kàddu yor kàddu famille bi yor kàddu euh, umma bi mais trait bi weesuwul xalif général ku mag rek ku ñëw rek benn ligne bi la moom benn ligne bi la yàlla ligne bi mooy lan faxay ba sëy naa limaamu li mu dénkaani moom mu mëne ko moom mu doxal ko ba du pas bi lu fi caw jaar-jaar yi daal dafa bari gis nga buñ ne daayira si senegal moom moo ko fi commencé buñ ne daayira vraiment daayira daayira au vrai sens moom moo ko fi commencé waaw Sénégal ba Sénégal dañ nag laa wax de Chérif Abdoulaye moo fi commencé daayre waaw daayre au vrai sens du mot jigéen ñeeg góor ñi toog di tudd yàlla waaw moom moo ko fi njëkkee tàggat leen def leen comme ay militaire pour tàggat ndew ji ëllëg xam ne ëllëg dina ñëw te pour nga yor ëllëg maanaam. ba nga buñ ñu yor réew mi aajowul si doon président wala doon député kilifa diine yaa ci te yorum réew diine si jiitu diine si jiitu gis nga borom costume yi ngay gis nii yëpp ñuy costume moo karavaatu ñu si bëri ndongo daara lañ waaw ñu si bëri ndongo daara lañ donc il faut nga am base te base yi mooy yaru diine te chef Ablaye def na ko si laayeen ku amul jotu toog ak moom wax ak moom déglu nga ay jàngam boo amul jotu toog déglu ay jàngam déglu nga ay kasetam déglu nga ay waxtaanam te bu dee benn baat sax di ko ci jànge fi mu nekk ni bu ñu la doon wax njëriñu sëñ ablaay duñ la duñu nuñ ko jeexal nuñ ko jeexal boo moytuwul sax ñun liñ si xam sax di dina am luñ ci bàyyi. Eh, eh, leen laay nu màggal Abdoulaye Thiaw Baye Abdoulaye Thiaw toj nga màkka ñëpp la gëm bur màkka jox lay médaille naan la yaa xabibi gëm nga boroom xafaaru Baye Abdoulaye yaay doomi Seydi Isa yaaram bi amu sa bay Abdoulaye Thiaw li jaadin bi